nous conforte dans la nouvelle ère de révolution des transports de masse qui règle les difficultés d'aujourd'hui et anticipe sur les problèmes de demain. Car gouverner, c'est prévoir. Plus qu'un système de transport, le BRT va contribuer à la modernisation à l'aménagement des 14 communes traversées avec un réseau d'assainissement de 40 km. Ces aménagements déjà visibles avec les pistes cyclables, mais également les voies piétonnes et plus de 1600 lampadaires. Aujourd'hui, nos partenaires Cycle le BRT un exemple, et invite le CETUB à partager son expérience. Bravo à l'ensemble des équipes mobilisées dans les travaux du BRT. Tous ensemble, faisons du BRT notre bien propre et protégeons-le par une attitude positive, patriotique et citoyenne.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

nuyu mboolem képp koo xam ne sookul nga ci réew mi nga xam ne mooy réew Sénégal di leen déwénati di ñaan ñu fekkee ko déwén di ñaan yàlla defal ñu jàmm te def tawfiix ak taysiir bi iznillah mbokk yi yàgg a suivre ci Baatu Dëgg TV tey nag ñu indi indilaat leen beneen numéro ci actualité politique yi nga xam ne ñu ngi koy faral di def tey nag ñu am gan gu mag gan goo xam ne kenn du ko nattale ñëpp xam nañ ko ci réew mi ci ay analyse am ci ay jàngatam ci tolluwaayu réew mi

kàddu yi rafet na sëñ Moustapha naka nga gisee baatu dëgg TV bi nga fi ñëwee dèjà. waaw li euh, ma ko gisee mooy xam naa ne niru na niru na boppam daal ndax baatu dëgg TV li ko taxoon a jóg li tax ba créé ko surtout. Mhm. mooy mu ne kàddu ko barab boo xam ne dañu fay yëkkati baatu dëgg. Mhm. dañ fay yëkkati baatu dëgg. Mhm. Euh, baatu dëgg nag boo ko bëggee yëkkati senegal moom bu déglu <laughs> da nga am jafe-jafe. Ah. ndax Sénégalais yi dañ leen a yàgg fenn bañ defe ne fenn dëgg la. Mm. mais vraiment maa ngi ci rafetlu li fi jot am. di ko mm. di di jàpp ne aussi dina gën a jëm kanam. ba mu mën a ba mu nekk télé bu mag a mag a mag parce que bari na nit ñu ci Sénégal ak ñu nekk ci réew mi ak ñu fi wut euh, Bah Diakhaté indi maanaam leeral na leen lu leen lëndëmoon. Mm-hmm. te jàpp naa ne rôle média dëgg-dëgg la ko tax a jóg mooy leeral la nit ñi lu lëndëm. Euh, jegeel leen lu sori. Euh, parce que souvent damay wax ne média moom ñetti la ñetti cër la ci doomu aadama mooy ay bëtam la ay noppam la ab làmmiñam la. Mhm. fii ne wax dëgg yàlla ku fi da nga fi loo xam ne am na njariñ dégg loo am loo xam ne dana am na njariñ daañu la fi wax lu am njariñ kon encore une fois véritablement maa ngi leen di euh, féliciter di leen encourager bi des na mooy man baar du ma ko masawu ci lee mu nekk. dëgg la du ma ko encourager itam parce que xam naa ne xam na la ko fa téye. Mhm. xanaa yéen ñi ma àndaloon liggéey bi rek laay wax ne ngeen gën a jaaju. te xam ne yoonu jàmbaar moom day ami day ami pakk day ami pakk te loolu moo àdduna ànd parce que nag fee mu nekk moom ah ka fexe ba mu dem fa di wax dëgg yàlla moo fa waroon na dëkk te du fa jóge muy Ousmane Sonko. ndeysaan nag bu dee mbirum diffusion de fausse nouvelle Sénégal. Mhm. ki ko def pendant fukki at mooy Ousmane Sonko. waaw foofu ah. daal barabam la moom. non non fa barabam la cest à du ba mu fa duggee yeex na dugg te waru foon génn waaye malheureusement nag président Macky moom moo moo moo dugal moo yokk xaram karaw ci xar mi. ba Ousmane Sonko mën a génn xam nga damay wax Sénégal du réew mu normal koo xam ne dañ ko condamné ci diffamation xam nga diffamation ci wolof mooy fen bu ànd ak yàqu der. fen wu ànd ak. yàq der loolu mooy diffamé. yow detu diine nga. Mhm. boo ko maanaam ci lislaam ku ko def. Mhm. dañ lay dur juróom-ñett fukk yar yoon. dëgg la dootoo nekk ilimaan. fajli duhum sama dootoo mat seede dëgg la. cest xam ne bu doon ci diine waratul nekk ilimaan waratul a ne mat mhm. daa war a ñu dur juróom-ñett fukki yar yoon Sénégal dong nga koy gis ñu nommé ko premier ministre. léegi kooku moo yor yaw di dóore moo yor premier ministre waaw ah, non bu xasee yor premier ministre kay bu ne bu noppee mën naa mën naa mën naa dóore lim yor waru ko yor ndax ku matul ilimaan matoo seede moto moto premier ministre d'une république lolu ah, mom mais nak sénégal mo mo télé non mais encore une fois comme le waxé ba mom comprendre na lim doon def parce que man dama ko dan suivre diko xol diko deglu ba ben bis mo wax sama ben xarit nako bo amé numéro téléphone nak mako wol mhm. man dama ko soxla mu ñew tok ak man parce que xamna naa ne doon def do gëm gis naa ñu bari ñu yëngu ñaari mais duma len duma len feñu mais ba xamna naa lim li doon def gëm nako li ko ci dalit nak Euh, pour man euh, médaille la ci moom. waaw ah. ah, médaille la quoi. parce que nag euh, ñun noo ko mag noo ko fa jëkk man 1993 lañ ma jëkk yóbbu rëbës maa fa fukki fan ak juróom-ñett am na ñoo xam ne am nañ fa at te leen fa yóbboon mooy des combats politiques li bon dal mooy dem kaso ci njubari. dëgg la comme la fa yóbboon Ousmane Sonko maanaam. di yee fitna bañ yóbbu la kaso wala la fa yóbboon Bassirou Diomaye fay di wax di saaga magistrat ba ñu yóbbu la loolu moo bon waaye baa moom li mu wax dëgg dong la wax wax dëgg yàlla jërëjëf euh, doyen gis ngeen ubbi bi macha allah kàddu yi rafet na il toujours égal à lui-même macha allah ñoom benn nguur gu bees Sénégal comme ni koy faral di waxee dëkk bi ñoo taxawoon ne ñoom changement lañ bëgg taxaw ni li fi nekkoon baaxul taxaw ni système bi dañ ko fi bëgg a jëlee naka nga gisee léegi système boobu ñu doon dàq ak tey ndax système bi mi ngi ci réew mi ba tey wala réew mi kat am na benn nouvelle ère boo xam ne mi ngi xew ci Sénégal.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 cest à jàpp naa ne pour la première fois ci histoire adduna. maanaam sama gëléem ga ca gànnaar lañ doon jaay waa Sénégal. kese non gë sama gëléem ga ca gànnaar sax moo moo tax c'est-à-dire ils nous ont vendu du vent. cest mooy réew mi jëkk ci àdduna boo xam ne ay politiciens jox nga leen sam réew ci ay fen parce que projet bi moom leer na ñëpp ne mu amul tàmbali ku ñu ko sax bind. dëgg la. fii ne ki koy bind nii mi benn euh, ministère de l' économie des la nekkoon euh, am na benn nopp lu ko jox prime euh, présidence foofu la nekk c'est quoi il s'appelle Ali Nar Diop moom moom mooy mooy en tout cas mooy coordonné mbindum projet bi bu dee maanaam système bi aussi cest di li fi li fi nekkoon 1960 léegi ñu di ko def ci lu bon ci réew mi ñoom ñu fi li ñu fi tàmbaleegu nag moo ko yées loolu mooy bi des na mooy parce que li mu jar.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 ñu ne lu ko ñu ne ko loolu dal mu ne sama gannaaw dama am douleur lombaire maanaam dama am gannaaw guy métti. sacralisation de lombaire gis nga xam nga loolu boo la boo yëpp nga laaj ko jigéen ñi matu jigéen ñi mos a matu c'est-à-dire moom matu ñoo tolloo. ah mais est-ce que moom douleur yooyu mhm. taal wotoom di ko dawalal boppam di wuti fi ne ko loolu moom mënta nekk. mënta nekk or méttitu douleur lombaire moog matit mét moog matu ñoo tolloo méttit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 ñett yépp mu bayyi ko fa di seeti gone gu jigen go xam bu feeree ijji ci la yam parce que do dolem posam fofu la fofu la fofu aussi dafa fen parce que nee ñak ñàkk mo fa yobbu or bu fekkee da nga nek député di faju 80 pour mi assemblée moo ko jël en charge hmm. bu dee kini cabinet kinésithérapie kinésithérapie bi nekk kër gor gi séance massage bi 10000 francs la bo amé 10000 bo fa démé bu fekkee da nga am 10000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 ab garde corps antum te mom foko sen mu ànd ciogalu garde corps kon man dem ci ko xamne nak janguko manam ko maanaam bu fekkoon te ne Adji Sarr ci très petit man je ma comprendre wa Adji mom waxuma la sax bés bés bés yaram gannaaw guy metti waye japp na ab loxo bi metti mënu koo fajj ku nekkoon fa mën damp mam la jang dedet Adji janguko mom ko mom xamul luy damp mom loolu mom vérifié nak am ci luma ma alors ci lay yi may lay pour justifier li tax mu dem fa pour mu dugg ci bop ni ñu mëna ñom dañu am agrément.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 waaye journaliste ñemewuñ ko def wala bok ñi ko def ñemewuñ ko siiwal kon encore une fois mu dem di fa faju wala xadi njaay kenn ci ñoom jàngut paj même ci bir lay sax da ngay dégg mu ne ndey xadi njaay naan ba fa ñëwee bisub da ñëw da laajte imot sen nee na li tax mu jaawale imot sen ak euh, ak suite beauté nyari ñaari numéro téléphone yi dañoo niroo waaye mais ñaari numéro téléphone yu niro taxut ñaari kër yi dend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 Pierre moom il est toujours égal à lui-même chaque jour rek moom mu ngi leen di xëpp asib. bi nga xam nga xam nga def boo gisee may ci lu mel nii <laughs> souvent dañu yaakaar ne sax ñoom pour dal ci seen kaw déedéet. man sénégalais yi laay waxal. c'est-à-dire li am fii ci réew mi diggante 2014 ak léegi laa bëgg dootu am ci Sénégal. loolu nag dafa laaj pédagogie. pour euh, ñi nga xam ne seen xel naam ràgg na waaye xëy na neex nañoo waxal. ma di leen expliquer processus bi ñu jaar. la ca nekk ci fen ak i nax. ba bu ëllëgee ñu mucc ci parce que dèjà yi am na ba pare moom ñii dee dee nañ ba pare ñii laago laago nañ ba pare. li yàqu yàqu na ba pare teewul ñoom ñu nekk ñoom lañ jox réew mi. loolu am na pare kon nañuy fexe ba bu ëllëgee beneen saay-saay du mën a def li Ousmane Sonko ñoom def. ba jël réew mi seen loxo man loolu laay loolu laay jàngale waxuma ko pour lu leen ne waxuma ko pour leen naqari waaye kenn mënu cee dindi baat

ñu gis ko it mu mel ni njiital réewu France it dalal na ko toog na ak moom. noo gisee France dégage boobu ak tey jii ni bienvenue bi nga xam ne am nañ ko ca France. xam nga ku ne xam na ne France wax dëgg yàlla nag réew mi def na fi lu bon. parce que France moo colonisé woon Sénégal. dëgg la pendant de siècles. Mhm. Faidherbe bu waalo rey na fa lu mu tuuti tuuti vingt mille waalo waalo nguur yi mu fi fekkoon ñu tas leen. Mhm. yenn sëriñ ci ñu rey leen. yenn buur yi ñu exilé leen yenn sëriñ ñu exilé leen hmm. wala ku ci deful ñu def la résidence surveillée teg réew mi musibam naaru naarulaay moo xam ne maanaam ñi même ñi nga xam ne ñooy sotu ñeen ñoom daloon léegi métti kon bëgg fexee ba nit ñi bañ France day yomb dëgg la cest Sénégal moom boo koy maanaam France boo koy wutalum noonu Sénégal jërut ngay sonn loolu nag ñoom Ousmane Sonko yooyu ñu doon wax naan France dafa tegu am am am ab wóomam ci sunu sunu loos France day mocc day mucc suñu deret loolu jubluwuñ ci woon lu dut manam tangal xolub nit ñi pour man leena manipuler pour man leena caporaliser populisme la parce que xam nga bu dee mbirum kom juroomi manam bu dee juróomi réew yi nga xam ño gëna copier ak france ci afrique sénégal bokku ci bokku ci bokku ci ay ki la égypte la Nigeria angola afrique du sud mais afrique bu ci ak peut-être Côte d'Ivoire même Côte d'Ivoire sax bokk ci cinq premiers bi ci des mooy tey kuy ku xam Sénégal histoire am depuis 1960 léegi da nga xam ne maanaam présence française ci wàllu réew mi dellu na ginnaaw lool. dëgg la dama toujours ne boo bëggee xam France da ngay comparer parc automobile dem dikk ak parc mobile yu Sotrac. Sotrac bi mu fi nekkee oto yëpp France la doon jógee Sawiem Renault. dëgg la ak dem dikk boo demee doo fekk benn oto bu jógee France. Mm, dëgg la ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc. Sénégal moom France delluwaat na ci dellu na ci ginnaaw bu baax bi des na mooy aussi man dama jàpp ne c'est vrai suñu digganteeg France lu bon la da cee am. ndax ñoo nu fekk te suñu réew rey suñu nit ñi ñu exilé leen def nañu lu bon waaye nag damaa jàpp ne ni ñu nu noté noonu lañ noté Algérie dëgg la. te nag Algérie seen guerre de l'indépendance moo gën a metti bu Sénégal ni ñu nu noté lañ noté Vietnam. dëgg la ni ñu nu noté lañ noté woon Tunisie ma jàpp ne ñun li nu war fi mu toll mooy au lieu ñu yor ay ay rétroviseur jël suñu bët yi teg ko ci ay rétroviseur di xool démb li ñu war a seet mooy ñun xool suñu ëllëg seet ba xam Sénégal nan la ñuy def ba ci wàllum koom mu dab Algérie dab Tunisie dab Corée du Sud dab Vietnam ci biir loolu nag jàpp naa ne war nañoo mën a ànd ak France. dëgg la l'essentiel ànd ba na nekk ànd boo xam ne kenn ku ne da ciy jëriñu. mais encore une fois dugal ci euh, Sénégalais yi xolub noonu France loolu du moo nuy développé. di jooyit aussi li nu France def ci lu bon du loolu moo nuy développé li nuy mën a développé mooy ñun ñu xam ne néew doolee moo nu tegoon ba France man fee ñëw not nu nañ feex ba ba am ba am doole ba ba ëllëgee loolu du dara. dëgg la je crois que c'est comme ça la ñu war a raisonner mais di wutal am euh, s ay noonu amul benn njëriñ parce Euh, réew yi moom la leen di développé du noonu ak réew leen développé mooy ci coopération bi ci wàllu xam-xam wàllu technologie wàllu économie je crois que njëriñ la pour Sénégal ànd ak France. mais l'essentiel ànd ba nag na nekk àndum nawle. nawle woon waaw àndum nawle. dëgg la c'est bien macha allah am na solo ba léegi it danaa ñëw ci wàllu li nga xam ne mooy dundinu askan wi dañuy wax ne en 2012 président de la république sa bi fi jógee di mag Sall. Mhm. neewoon nañu daf fi def 18 jours daal di wàññi li nga xam ne mooy denrée de première nécessité bi. mu defoon it wàññi yoo xam ne it ne nañ wàññi woon na lu mat ay cent franc wàññi woon na daal liñ mën a tuddee wàññi wàññi yoo xam ne ne nañ am na njëriñ mhm. gouvernement bu bees bi it nit ñi tamit doon leen xaar ci yooyu mu bokk yi ci li nga xam ne moom lañ doon campagne réew mi ne buñ ñu jotee ci réew mi danañ wàññi li nga xam ne mooy dund gi mhm. dem na ñaari weer am na wàññi boo xam ne am na ci li nga xam ne mooy ci mburu mi def nañ ko ci ceeb bi def ko ci diw gi ak ci yeneen pàcc yoo xam ne xëy na yaatoo gut naka nga gisee wàññi bii nga xam ne xew na am na nag ñu wax ne wàññi la waaye mburu mi dañoo wàññi poids bi waaw xam nga gis naa sax kuy wax mburu Macky mburu Diomaye xam nga xam nga wàññi wàññi wàññi wàññi am na sax naam. Hmm. bon ñoo ko diggoon réew bi nag. dëgg man dinaa la wax sama xalaat ci mbirum yooyu parce que jàpp na ne du loolu mooy yoon bu baax bi euh, yoo wàññi nañ waaye ñoom seenu wàññiin bokkut ak wàññiinu Macky Sall. Hmm. parce que Macky Sall bi muy falu dafa fekk mu am expérience état nekkoon na premier ministre nekk président assemblée nekkoon hmm. ministre yu bari. jël ku mu nommé premier ministre Abdou Mbaye muy nit ku liggéey ci banque am xarañ am xam la secteur économique ci fukki fan ak juróom-ñett effectivement waxtaan nañu ak ñi mu concerné ñëpp. ba ñu dëppoo ci kàddu. ñu ne lii ak lii ak lii dañ koy wàññi. xam nga lu tax Macky Sall ak Abdoul doxale woon noonu principe bu commerce Sénégal état du fixe prix. principe bi laa wax de état du fixe prix gis nga boo demee ci la loi sur commerce. daf ne prix ña koy fixé mooy la concurrence maanaam ñiy jënd ak ñiy jaay. ci seen waxale ci lañuy fixer prix lool moy principe bi. deug la maintenant nak dem loi bi aussi nee bu fekkente ne musiba amna ci réew mi wala pour des raisons économiques wala pour des raisons sociales état mën na wañi prix waye boy wañi prix da ngay wax ak ñay jaay état du jaay. Hmm. fofu le fait que déjà ñom ñu dem bay bay bay xebal xëbal meñ ni manam ñi nga xam ñoy défar defar fariñ bi erreur la parce que ñom ñiy defar farine ñooy jëndi seen bale. indi ko Sénégal defar seen usine yor seen ouvrier ñoom ñoo xam lan la ñuy dépensé. parce que boo xamee li nga dépensé maanaam li ñu wax prix de revient farine bi ci boobaa ngay xool yow lan nga ci war a teg sa bénéfice kon loolu ñoom ñoo xamee état mën na ko bañ a xam kon encore fois bu fekkee état dafa ko wàññi njëg daa war a wax ak ñay jaay. jiitaloon waxtaan ak ñoom loolu la waroon def mais nag xam nga Ousmane Sonko moom daa defee ni lépp xëbër la. moo tax. Euh, père nag Ousmane Sonko nag ko may tuuti. non non du ma ko dara xam nga moo moo wax moo non moo dugal boppam ci làmb ji xam nga li mu def ci politique Sénégal kenn du ko fi musul def. kon moom bu fekkonte ne daa war daa démarche bi mu jëroon na ci waroon na def mooy defoon bi Abdou Mbaye ak ab Macky Sall defoon. kon coow lii ko topp du ko ci topp. te mën naa am sax xëy na mu am résultat yu gën. moo benna xam nga man nag sama philosophie ci lu mu njëkk. dafa am lu sëñ Fallou daan wax. Mhm. bu ñu ko mosaan wax ne ko njëg yi yokk na daf naan yàlla nanu yàlla may lu ñu ko jëndee. lu ñu ko jëndee dëgg la. xam nga oustaz lii gën. Hmm. mooy fexe ba nit ñi seen poos dara ne ci. Hmm. gis nga poos bu dara newut boo doon jaay mburu 15 du ko jënd. du ko jënd dëgg la. kon encore une fois loolu nag ci politique. président Abdoulaye Wade moo ko fi boo xoolee rappelé wu xëy na booba mën naa mu nekk léegi de bi muy diggee ne suñ ko joxee réew mi kilo ceeb fukki dërëm ak ñaar la koy jëndee la koy jaayee une proposition démagogique parce que état jëndiwul ceeb ba di ko jaay Suzanne donc loola ba léegi na moon topp mooy su ñëwee élection rek. dëgg yi naan dañuy wàññi njëg yi. maanaam damaa jàpp ne 64 appelé par dañu war a bàyyi loolu. Hmm. di wax nit ñi ne bu ñu faloo ñu fexe ba seen poche yu dara ne ci. parce que poche yu dara nekk moo gën moo gën a wóor pour jënd njëgu një njëggu wàññi bi tax mooy. dëgg la gone nga xam naa waaye nag. dëgg la. boo comparé mburu y a 30 mburu yi fi amoon y a waaw ñu daan ko jaayee 100 francs. 100 francs dëgg la. <laughs> nga comparé ko mburu yi ñu cent 150 francs. waaw mburu mburu yi ñu doon jaayee 130 ëpp na ko ñetti yoon. moo tax nit nit yi jamono boobu ëpp doole. ëppee na ko ñetti yoon su ko defee su ko defee même saa li ngay yow naan la moom la ñu di jaayee cent cinquante franc wax dëgg yàlla jërut sax juróom benn dërëm parce que mburu si day sew ruuj du am sax li ñuy wax ñuux. kon encore une fois mais loolu aussi xam nga politiciens ñooy naxe askan wi lu mel noonu. dëgg la gëm loo de wàññi nañ mburu fekk na boo mburu mi maanaam ga ay gars yi mën nañ laa jox miis wi de ne la 150 lañ ko jaay waaye poids ba mu waroon def. lépp lañ dindi mën nga caa ba daal dañ lépp day dañ maanaam bu ñu dindee poids bi nag. yow nga jaay la ko 150 francs ba kenn ngay borom xel mu ràgg da ngay def ne mburu mi daa gën a yomb fekk na mburu mi daa gën a cher encore une fois pour man jàpp naa ne la promesse politique yi gën mhm. mooy wax ne boo faloo mhm. da nga fexe ba ba yokk koom gi maanaam mbay mi yokk mhm. càmm gi yokk mhm. napp gi yokk indi mhm. industrie bi yokk yokku euh, artisan bi yokk commerce bi yokk bu ko defee li ñi ëpp ci Sénégal bu fekkee seen i poste daraa nga ca suñ bëggee jënd dara dañ ko jënd waaye loo njëg boo ko yombee boo ko wàññee lu mu yomb yomb ki yorut mënu ko jënd mooy li wolof ñaay naan bu <laughs> for euh, for yombee sëgg yomb euh, maintenant fexe ba nit ñi sëgg yomb leen. dëgg moo gën nga nga nga nga di bëgg a for loo xam ne mënuñu ko for. encore une fois personnellement bon wàññi nañ yéex nañoo wàññi. Mm-hmm. ni ñu wàññee baaxul ndax indi na coow. Mm-hmm. ah euh, gëw ma ne te nag li gis ma fàttali ko loolu Sénégalais yi gis nga état bu fixé prix par arrêté. Mm-hmm. loi bi daf ne ko ñaari weer lay am. su ñaari weer yi jeexee mën nga cee tegaat ñaari weer muy ñeenti weer su ñeenti weer yi jeexee. boulanger baak mën yi mën ki doon ñi doon defar farine lañ doon jaay bu leen neexee jaayewaat ko cest à bi yàgg yàgg du ma dëpp 4 mois. mooy wàññi bi du yàgg yàgg mun a mënut a parce que loolu la loi bi prévoir. kon am ta bu ko laal du am sax du am sax dañ naan ko xuy kamet dañ la koy xuy bay doo ko sax laal. en réalité c'est des trucs yoo xam dañ koy def même boo xoolee ni ñu ko defee d'abord avant ñuy tabaski ñu def conférence de presse. naan wàññi nañ te fekk bañ koy wax ñoom xam nañ ne def nañ tooxi doon parce que bala ñu ko woon a wax dañoo waroon dem conseil national de la consommation. muy étape bu ñu tëb. bañ xamee ne tëb nañ ko maintenant lañ dël si waat parce que boo xoolee euh, secrétaire général gouvernement bi moo moo moo moo présidé woon conférence de bi bi tabaski jàllee ñu ñëw nag conseil national de la consommation ñëw ñëw di ci wax maintenant am na ci loo xam ne xaw na ma jaaxal mooy mbirum prix ministre du commerce la ko république du Sénégal dénk. dénk ko secrétaire général du gouvernement. dëgg la waru fa woon a toog bay wax. waaw na ci muy jéem a xëble les meuniers meuniers ay industriel lañ ay nit ñoo xam ne dañuy daan seen doole jël seen alal di ko def ci industrie muy ay risque pour non seulement jariñ Sénégal mais aussi ñu jariñu je crois que lu ay lu ñu bëgg am ci ñoom war wax mën a waxtaan ak waxtaan wu dal ci biir loolu nag maa ngi félicité euh, président Baye di Agne dox na ci ay jéego ba jàmm ba ba ñu déggoo mais je crois que lu mel noonu ñu jëkkee mujjee dañ ko waroon jëkkee parce que nag réew soo ko yoree li nga war a def mooy looy def lu ne nga xool lan la la ci constitution bi wax lan la la ci loi yi wax ñoom bu ñu xamoon ne wala boobu bu ñu fat bu ñu xooloon ba xam ne li loi bi wax ci mbirum njaay mooy benn gouvernement du fixer prix wala buy fixer prix ci condition yu moo war a tax mu def ko te bu koy def daa war a wax ak ñi nga xam ne ñooy jaay ak ñuy jënd mais malheureusement defuñu ko mais pour le moment euh, tudd nañu wàññi mais yaakaar naa ñi gisagul njëriñ li bëreegul bi gis nag Ousmane Sonko daa am lu mu waxoon. daf ne jaaduwut euh, essence ak gasoil di jaar ci poorum Ndakaarum. di dem mari di gën yomb. moom moo waxoon ne jaaduwut. tey jii mooy premier ministre. li mu waral li mu waroog mook Sénégalais yi fexe ba litre pétrole ak bu essence ak gasoil. gën a yomb Sénégal parce que nag moo ne woon li am mooy mooy pétrole bi di jaar Sénégal di dem ba Mali. li gën a yomb di fii gën a chéré gën a chéré euh, Sénégal loolu nee na jaaduwut ginnaaw jaaduwut nag te léegi moo yor réew mi na ko dindi loolu la Sénégal yi xaar ci moom mooy dindi li jaaduwut. xëy na bu état de grâce bi jàllee fii ak. loolu jotul ah loolu décision la rek. Hmm. décision la ginnaaw moom daa jaaduwut nee na jaaduwut lu jaaduwut kenn du ko fa bàyyi mu di fa toog parce que lu jaaduwut moom gaaw a dindi rek kon encore une loolu jàpp naa ne Sénégal yi ñu ngi ko ciy xaar mooy mbirum essence mbirum gasoil mbirum pétrole yu mel noonu te mu gën a yomb Mali te yëf di jaar biir Sénégal te Ousmane Sonko nee woon loolu jaaruwut na fexe ba mu gën a yomb Sénégal parce que loolu Sénégal yëpp ñu ngi ko ciy xaar. doyen jàppaloo ne bu bees bi xëy na it comme ni ko premier ministre woon ne ay nit lañ yoo xamante ni xëy na ñu ngi doog a dugg ci wàllu nguur aussi it amul benn école boo xam ne fa la ñuy former nit pour ci wàllu yorum li nga xam ne mooy réew est réalité politique moom moo leen dab ah kay ah waaye mais Ousmane Sonko dana woon gëmul la gëm loolu la waxoon. ah nee na réalité politique am volonté politique am. sañ nga ne ko gëm. ah d' accord doo dee sax dee moom boo doo yëg ne dee nga bu ñëwee doo du la fa. beneen la ok beneen affaire la. c' gëmut réalité politique. Mm-hmm. volonté politique la gëm. Mm-hmm. ginnaaw réalité politique gëmu ko. Mm-hmm. volonté politique jàpp na ne mën naa résoudre tous les kon problème yi Sénégal am na ko réglé par volonté loolu en réalité li muy tekki mooy ñàkk xam-xamam. ñàkk xam-xam mooy nag nga naan gëwuma réalité politique ñàkk xam-xam mooy nga jàpp ne volonté politique lu ne mën nga ko cee def maanaam volonté politique nga def nga def ne mën nga lépp mooy lépp loo xam ne bëgg nga ko def. Mm-hmm. nga am nga mën koo def parce que da nga koo bëgg a def. dëgg la adduna yombiwul noonu bu doon looloo Sénégal du doon su pays sous développé kon Macky Sall ba fay jógee def Sénégal ba mel ne Dubaï. kon la Senghor doon wax naan l'an 2000 Dakar sera comme Paris dana fekk Dakar comme mel ne Paris kon volonté politique doyut naam baax na waaye boo ko amee ba noppi da ngaa war a am xarañ. dëgg la je crois que xëy na am na volonté politique waaye seenu xariñ yor réew moom wax dëgg yàlla manqué loolu nag Sénégalais ñoo ko def ñoo xam ne mosuñu yor bureau nga xëy jox leen réew loolu Sénégal na ko parce que nag ñu jëkk ñi muy Senghor ak Mamadou Dia dañu am jaar-jaar. Mm-hmm. awañu leen jox réew mi. Senghor bi mu fi jógee jox Abdou Diouf Abdou Diouf jaar jaar d'abord nekkoon na gouverneur nekk ministre nekk premier ministre pendant dix ans. kooku bi ñu ko joxee réew mi doxal ko du du woon jafe-jafe Abdoulaye Wade aussi ja am na jaar-jaar il a été député pratiquement pendant plus de vingt ans nekk na fi ministre d' état xam na lan mooy état bi ñu ko joxee aussi ànd ak Moustapha Niass ki amoon une grande expérience mu mu mu doxal Euh, Macky Sall aussi bi mu ñëw fekk na moom te moom jaar-jaar nekk nekkoon directeur ministre ministre d'État premier ministre président de l'Assemblée national kon bi ñu leen joxee ñoom xam nañ nan lañ yore réew Sénégal nag ñoom ñoo jël seen loxo dóor ko ci ëkk da ko jox ko ñoo xam ne mosuñoo yor bureau maanaam comme Bassirou Diomaye Faye moo Sonko mosuñoo maanaam su mosuñu am secrétaire tey jii ñu xëy xëy jox leen am réew loolu fokk mu jafe-jafe am ci te nag amuñu woyee fukk woyee fukk xam ne xamuñu ñuy jàng gars yi nag dañ ne sénégalais yi yàlla daf leen may lu exceptionnel ren mooy benn élection boo xam ne da ngay joxe benn ticket daal di am ñaari président oui oui affaire non non non ñaari président amul. léegi dafa am leneen fu mu bëgg a dugg. mooy parce que dañuy wax ne premier ministre bi dafa dugg ci prérogative yoo xam ne ay prérogative ki nga xam ne mooy njiitu réew mi la. parce que dañ ne gis nañ ci politique bu étranger u Sénégal. mu ciy def yenn jeexital ak yenn doxin. lu mel ni dalal ay ambassadeur ak dalal loolu. naka nga gisee loolu. non xam nga euh, c'est vrai ñoom bi ñuy def campagne. dañ noo jaay dañ affaire dañu jaay Sénégalais jamaay moy Sonko. man ginaaw man sax man mi gëm né Sonko baxut jamaay bañoon na doon Sonko mo gën ci réew mi mo gën ci jamaay aussi. bon léegi ñoom lijjanti nañ nag ba falu bañ ñu jox leen réew mi. effectivement am lu feñ ñuy gis ci niñ muy Ousmane di doxale melni mi ngi duggal loo xam ci ciirup président de la république. de la république. euh loola du sax recevoir ambassadeur pour man c'est pas gênant. Hmm. mais mom ci boppam moko wax. keroog ba muy def théâtre fii ci grand théâtre damay. non conférence la doon no non non non non te conférence ut. waa JPS ñoom ñoo ko. dal waaye du conférence xam conférence dañoo tuddee la contribution de la jeunesse dans le projet looloo doon conférence bi. ci leen sant sax ci yeneen la ci yeneen la doon wax nañ ci leneen la doon wax li mu doon wax waxut ci loolu alors léegi mu ne moom Ousmane Sonko dane Serigne Goundou Serigne Goundou léegi yow del féetewal tukki yi ak affaire armée te bàyyi ma yor réew mi. Hmm. mais ça c'est irresponsable c'est Ousmane Sonko bu tegul fenn Ousmane euh, euh, Diomaye Faye ba jëmee ko wooyee sëriñ ngundu ñeme ko wax ne nee naa ko yow del tukkiit ak yor affaire de wax te bàyyi ma yor réew mi war naa respecter Sénégal yi nga xam ne ñoo fal Bassirou Diomaye Faye parce que nag Bassirou Bono mu baaxoo mooy président bu Sénégal et mooy président de tous les Sénégalais. dëgg la gis nga bu fekkoonte ne même Sénégalais aw bëy lañ fal Ousmane Sonko da ko war ki nga xam ne mooy Bassirou ba tudd ko Serigne Ngundu musuma dégg ci Sénégal ku ku ñu fal président de la République ku ñu fal premier ministre ngay wooyee un président un surnom surtout un surnom boo xam ne surnom bu dévalorisé la parce que Serigne Ngundu mooy un faux marabout. que loolu nag li muy tekki mooy en toujours le comme ni ma rek Ousmane Sonko dañ ko solal ta dallu kilifa wu ko wu ko ëpp. moo tax buy dox di tërëf tërëf mais encore une fois effectivement gis nañu. tànk yu muy dox yoo xam ne du tànku premier ministre bii de mooy on na coow lu fi jib lettre bu ñu wax ne bind ministre de la défense. ak euh, le SEMGA ak yenn militaires ne leen ñu évaluer maanaam ñu accord de défense du Sénégal am. ak États-Unis France. Mhm. ak Canada. voilà loolu loolu de bu c'est très grave. bu parce que mbirum défense diggante état bu Sénégal la ak état yooyu mu tudd. or Sénégal benn benn nit moo koy représenté moo moo représenté état bi ci àdduna mu le président de la république parce que accords yooyu c'est des accords entre l'état du Sénégal ak état yooyu bu ñëwee bañ def bañ bañ d'accord ci dañuy yóbbu assemblée nationale ñu wote ko ratifié ko kon loolu premier ministre waru cee wax maintenant ci biir loolu nag man damaa jàpp ne groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar am nañ jumtukaay yu leen constitution may ak réglementaire waroon nañoo mën a euh, gëstu ba mu leer ci ndax lii Ousmane ñuy wax ne Ousmane Sonko moo ko def moo ko def wala defu ko loolu naka la commission d' enquête parlementaire day yàgg parce que six mois la gën gaa tuuti. mais lu mel ne mission d' information. ci fukki fan ak juróom mën nañu am information yu leer nañ ndax Ousmane ko moo bind lettre wala bind ko mën nañu ñëw fekk bureau ñu laaj ko ne ko ndax yaa bind lettre bi. bu ñu fa jógee dem ci Biram Diop ministre de la défense ne ko ndax Ousmane moo la jox lettre bi. dem ci Semga Mbaye Cissé ne ko ndax Ousmane moo la jox lettre wër leen ñoom ñëpp. journal bi nga xam ne moo bind xibaar bi ak fu mu mën a nekk war nañu mën a déplacé wu fekk fa ne ko ndax yow lettre bi nga yow Ousmane Sonko moo ko bind suñ demee ba xam ne moo ko bind assemblée commission mission bi bu desewaatee day rendre compte à la plénière buñ ca jógee bu fekkee moo ko bind ñu def motion de censure daane ko parce que bu fekkee Ousmane Sonko dafa dugal loxam ci mbirum armee ci mbirum évaluation des accords militaires wàcc gi maanaam bàyyi jóge na cëram cër premier ministre di def président de la république te loolu ci ci ci yoon coup d'état lañ koy tuddee mais malheureusement la groupe benn Bokk Yaakaar responsabilité am jëlu ko ba mbir mi ñu leeral ko parce que mbir mi dafa war a leer ndax dëgg la wala du dëgg parce que bu dee dëgg c'est très grave qu'un premier ministre di dugal loxam ci loo ne sañ-sañu président de la République su dul dëgg aussi c' très grave parce que tu ji doon noonu war a su ko teg ci ndoddum premier ministre te réglé wuñ ko. dëgg la ñu ñëw aussi ci wàll parlement boobu ni nga ko tuddee mu am euh, loo xam ne constitution bi daf ko teg maanaam saa bi ñu tegee premier ministre war na def li nga xam ne mooy di DPG mooy déclaration de politique général assemblée aussi loi organique bi nga xam ne moo fa nekk daal di digal premier ministre ci diiru 90 jours. war na mën def li nga xamante moy déclaration de politique générale loi bi nak nga xamante moy constitution réew mi mom teunk ko assemblée bi amna droit teunk ko ci 90 jours yi ak aussi timit bu amuñ droit teunk ko pourquoi teunk bi ak premier ministre bi lan lay xaar ci boobu ba légui it quand même pour def déclaration de politique générale bi. euh jërëjëf euh, ñu def pédagogie manam pour nit ñi comprendre li xew ni parce que dégg na sànq sax député passé bi def conférence de presse di ci wax. bi ñu waxee par dama leen yërëm jéppi leen euh, effectivement constitution bu Sénégal daf ne dafa digal premier ministre bi ñu fal ne ko na nga def déclaration de patrimoine de déclaration de politique générale maanaam na nga wax assemblée nationale lan nga bëgg a def mm-hmm. déclaration de politique générale mooy li nga nar a def wax ko assemblée nationale. bañ xam ko parce que assemblée muy représenté peuple donc à la mooy waxal ak askan wi. Mhm. maintenant continue li xew léegi avec les médias buy wax ak askan buy wax ak assemblée askan wi yëpp lay waxandoon. assemblée kon constitution bi daf rek. prime premier ministre bu la nommé na def déclaration de patrimoine foofu la euh, pardon na def déclaration de politique mhm. wax ko ne ko jamono sàngam ak jamono sàngam nga ko war a def guddi nga ko war a def wala bëccëg nga ko war a def daf ne ko daal nanga ko def alors assemblée nationale nag dugaloon na ci règlement intérieur bi disposition boo xam ne daf ne bu ñu la nommé premier ministre ci quatre-vingt-dix jours war ngaa def déclaration de politique générale man nag jàpp naa ne même disposition boobu assemblée nationale dafa violé ay prérogatives am mhm. parce que constitution bi bi mu nee premier ministre daa war a def déclaration de patrimoine. politique politique générale pardon. waxut ne na ab loi na na ko ab loi moo koy organiser. or boo xoolee constitution bi. Hmm. yëpp yoo xam ne daf ko daf ko ci wax. te loi war ko organiser da koy wax. Hmm, dëgg la danaan loi ko war a organiser su boobaa nag loi boobu muy tudd loi organique loi boo xam ne dañ koo seggee ci biir constitution bi mais. Hmm. li am mooy Sénégal effectivement. assemblée co co euh, règlement intérieur bi reprendre woon disposition bi nekk ci constitution bi. Mm-hmm. yokk ci ne ci quatre jours la ko war a def. dëgg la waaye li am mooy deux mille dix-neuf bi Macky Sall faluwaatee. dafa dindi premier ministre. donc disposition yi nekk ci conseil ci constitution bi te concerne premier ministre yëpp ñu dindi ko. Mm-hmm. disposition yi nekkoon ci règlement intérieur te concerne premier ministre lépp ñu dindi ko. jëloowaatuñu ko quand même. waaw foofu laay jëm si léegi bi ko dindee. deux mille vingt deux defe naa président delloo si waat premier ministre. premier ministre disposition yi concerne premier ministre ci constitution bi ñu delloowaat ko ci. waaye nag fàttee delloo disposition yi concerne premier ministre ci règlement intérieur. Hmm. kon guddi yi nu toll moom règlement intérieur waxu dara ci déclaration de politique générale. assemblée moo fauté. Ah, ci côté boobu assemblée moo fauté mais malgré que assemblée moo fauté teewul Amadou Ba. bi muy def déclaration de politique générale ci condition yi la ko défé ok ci condition yi la ko bi mu ko def bobu réglementaire jëlaatu jëlu ko en charge mais ñom dafa jëfé constitution bi bi dess bi ñom wa way passif def nañ fi ben motion de censure mhm. ne dañuy daane premier ministre mhm. pourtant règlement intérieur biñ ko défé bobu nek lolu nekatu ci pourtant bima ma leen déggee ñu wax sax dama sama yaram dafa daw parce que ñoom bu ñu xa ginnaaw xam nañ ne maanaam da parce que li taxoon ñooñu def conférence de presse bi tey mooy ñoom dañuy layal bañ a ñëw Ousmane Sonko. d' abord loolu du seen cër. parce que ay député lañ Ousmane Sonko gouvernement la bokk. bu fekkee moom moo war moo bëggut a ñëw moo ko war a waxal boppam mais du ay député ñoo ko war a waxal loolu première faute la deuxième faute bi mooy ñoom ginnaaw xamoon nañu ne règlement intérieur bi baaxut kenn ci ñoom ku mu neexoon mën ngaa def proposition de loi ñu modifier règlement intérieur bi. ñaar ñett am te kon xam nañu ne réglementaire bi baaxul teewut ñoom ñu déposé woon motion de censure contre Amadou Ba. dëgg la kon jàpp naa ne ñoom fa ñu waroon a waxee waxee wuñ fa fa ñu waroon a defee defee wuñ fa kon en gros amuñu sax légitimité pour di ci wax. am mais encore mais fondamentalement lem solo rek mooy euh, constitution bi moom daf ne premier ministre daa war a def déclaration de patrimoine politique générale waxu ko nag bis bi mu ko war def da ko war def guddi wala da ko war def quatre-vingt-dix jours maintenant nag xam nga yow nitu diine nga. xam nga li yàlla wax ci alxuraan ne bu yàlla ne nangam ci alxuraan naa ko. jërul ngay xool ndax addis araamal na ko wala araamalu ko. dëgg la maa li muminin wala muminatin iza qada yàlla ne daganal naa nangam. Mhm. jërul ngay xool ndax addis daganal na ko wala daganalu ko. dëgg la autrement dit. premier ministre daa war a def déclaration de politique parce que constitution bi sonn na ko am te kon règlement intérieur bi am na problème. maintenant li ma jàpp nag mooy Ousmane Sonko damaa defe daa ñëw wut a dem assemblée nationale. li ma la mooy yan risque moo nekk ci demam assemblée nationale. Ah, la mu leen lebal. Hmm. ah te wala Ndiaye naan <laughs> saan wuy dem di dikk euh, xaw ma la béy doy na ci. <laughs> ah la mu leen lebal daa baaxut xam naa day tiit ñu fay ko ko moo tax muy wutu lay. Hmm. waa waa Pastef aussi di ko wut lew lay waaye man li ma jàpp mooy président assemblée sax moo war a régler problème bi ci ñaari anam nag bu ko neexee. Mhm. ñu modifier ñu def session extraordinaire boo xam ne ordre du jour bi mooy réadapter la la le par rapport à la réentre le fait que ñu delloo si waat premier ministre. ok benn bu mënul def loolu mu saisir le président du conseil constitutionnel laaj ko devant cette situation quelle conduite à tenir. su boobaa président conseil constitutionnel conseil constitutionnel dana ne ko defal nangam su ko waxee ñaari bunt yi la ñu war def parce que bu ñu may Ousmane Sonko occasion mu bañ a def déclaration de. parce que assemblée session bi mu ngi bëgg a jeex le 30. le 30 lay jeex mais mën nañu def session extraordinaire l' assemblée organiser une session extraordinaire. le lendemain même def modifier le règlement intérieur. bu leen neexee nag ñu di ñu def ko sax cinq euh, une semaine su boobaa Ousmane Sonko def déclaration de euh, politique générale am balaa balaa session bi ubbi parce que c'est pas lié donc encore une fois loolu président assemblée na mën na ko mooy ñu modifier ñu defaraat réglementaire ba mu dëppoog ni mu war a mel mu reprendre disposition constitution bi ci wàllu déclaration de politique ak motion de censure ñu defaraat ko. ba mu ba mu mel na meloon. wala boog moom président assemblée mu saisir le président du conseil constitutionnel bii. ban conduite à tenir su boobaa conseil constitutionnel la mu koy wax. loola moom dañ moom la ñuy jëfe décision lay doon encore une fois jàpp naa ne loolu moo gën mais li xa li nga xam ne moom laa xam rek mooy Ousmane Sonko moom ji na bon asa nam tuddati waa benn groupe benn bokk bi mu nekkee député xam naa ne bëggul ñu fay ko ko te nag man xam naa ko du nit ko am culture du nit ko amuk dal ba li mu doon def ku ko def mu tàggu sa sagom maanaam ñàkk teggin gi réewandi gi mu doon wane assemblée nationale moom ku ko def mu dof loolu na xam naa ne moom la gars yi bañ mu feeñ. risque yooyu lay ragal risque yi lay doon mais pour en tout cas nag assemblée def li mu war a def pour que moom mu def déclaration de politique que nag aussi dama sax ne Amadou def na ko te teewul réglementaire bi baaxul woon. mais teewul Amadou Ba def na déclaration de politique générale. waa Pastef aussi defoon nañ motion de censure quand quand bien même euh, prévoiru ko woon. kon encore une fois jàpp naa ne euh, et puis bon def lu baax moom. Euh, surtout que bu fekkee constitution bi da koo digal da la koo digal je def gi moo gën quoi. te loi bi nga lay may loo xam ne waxul la kañ nga koy jël te yaa ngi koy jël. waaw bien sûr waaw cest à ah, déjà xam nga la constitution def ne le premier ministre dispose de l'administration. Hmm. xam nga loolu la constitution ba. mais keroog ba bañ ko falee la ko la disposer que assemblée constitution bi ne la na def déclaration de politique générale. mais yow booy a ndigalu askan wi nag bu dalee ci sa kaw da nga war a lu mu gën a gaawee moo gën xam nga nag souvent dama ne 90 euh, jours yi assemblée man jours. dëgg la bu mel ne France bu ñu la nommé premier ministre dans 10 jours yu njëkk yi ci ngay def sa déclaration de politique générale. parce que du affaire boo xam ne dafa laaj technicité. ay fi nga jëm ak na fa bëgg a demee rek ngay wax nit ñi. kon mais nag li wér daal mooy na Sénégal yi xam ne Ousmane Sonko moom xam naa kuñ ko dafa leble bor boo xam ne nag xam naa bëggul ñu fay ko ko waaye li wér mooy gouvernement groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ak yeneen député ak président sam nañ jël matuwaay yi ñu war a jël. pour que nag Ousmane ginnaaw moom moo cuune wut ginnaaw moom moo xam lépp moo mën lépp na ñëw assemblée sax wan ko waa réew mi. loolu moom jàpp naa ne kenn ku ne war na cee def li ko li ko war. macha allah c'est bon Sénégal depuis trois mois. Mhm. am nañu ay dettes bor yoo xamante ni nguur gu bees gi jël na ko ba leb na aussi ci li nga xam ne mooy eurobond. lépp aussi ci bi bañ na plus de mille et quelques ay milliards yoo xam ne mu ngi dugg wala mu ngi war a dugg ci li nga xam ne mooy gafkaak réew mi mhm. te dañ doon xeex li nga xam ne lépp gi nga xam ne ñun suñu dëkk yi moom la ñuy def bay dàq sax ñi nga xam ne ñun ñoom la ñu war a lépp nan nga gisee situation bi nga xamante ni toujours dañu delluwaat ci euh, waxee Ousmane Sonko rek xam nga Ousmane Sonko moom mooy opposition Ousmane Sonko Ousmane Sonko mooy opposition Ousmane Sonko hmm. c'est-à-dire que lu lu lu lu ñu ci xalaat ci mbiram rek man moom laa koy natt ay waxam laa koy natt moom moo ne mhm. moo ne woon Macky day yolom signature mu yolom signature ah noonu la ko tuddee woon dëgg la di yolom <laughs> luñ ko ku ñëw leble rek mu leb signature ah loolu la ko tuddee woon di daal di ne ñun Sénégal soxlawuñu ay bor maanaam soxlawuñu FMI soxlawuñu banque mondiale soxlawuñu kenn fëgg dënd bi mhm. ah ñu dem ñu falu ñetti weer lañ fi am mhm. leb ba rek mill milliards yu tegal mais li gën a garaaw du mille milliards yu oustaz xam nga lan moo garaaw. Mhm. FMI nee na bor yi mu mujj jël muy quatre cent cinquante milliards yi mu def Europe mooy. Sénégal soxlawu ko. mais li FMI nee na te FMI nag lu mu la wax ci koppar moom ci ci ri àdduna moom mën nga ko. amul woon nécessité wu jël ko. nee na nee na soxlawu ko nee na Sénégal an li mu yor ci xaalis dafa ëpp kon léegi moom lu tax ñoom ñu lebi eurobond loolu nag dafa laaj gëstu et je crois que là aussi assemblée nationale war na ci def liggéey. parce que eurobond yow boo ko lebee boo koy boo koy wuti. Mhm. yow mi koy wuti daa am lu ñu la ciy jox. dëgg la mu ñëw ay commission. te xam nga quarante quatre cent cinquante milliards bu fekkee da nga ci am commission. bu doon même un pour cent bari na de ndax ah, déjà 4 milliards yu tegal ah, la. kon assemblée nationale aussi am na information yu génn am na article bu ci ma Madiambal Diagne bind. assemblée nationale jàpp naa ne la commission économie générale war naa mën a créer une groupe d' information pour laaj premier ministre ministre de des des finances ak ñi nga xam ne mooy ñoom ñoo doon dox mbir yooyu ba xam quelles sont ban ban modalité la. Mm-hmm. ginnaaw soxla wuñ ko lu tax ñu leb ko. Mm-hmm. parce que nag euh, boo xoolee bor bi bor la boo xam dañ koo leb. pour fay ci bor maanaam sul bukki suli bukki mais li gën a garaaw mooy eurobond yi gën a cher ci àdduna moom la Sénégal lépp dëgg la war koo fay ci diir bi gën a gàtt waaye koo xam ne nag da nga doon fëgg sa dënn naan soxla woo alalu kenn ku wax nga ne Macky Sall cuune la tërërër yi dem ba ñu jox lam réew nga def lu garaaw yi nii wax dëgg yàlla jàpp naa ne assemblée nationale waroon na ci jouer rôle mooy fexe ba xam nag lan moo lan moo tax mu lebi li mu soxla wut. bi mu ko lebee nag kan yan commission moo ci génn commission yi kan a ci yor parce que nag Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye dañ dañ noo dig. ak jubal jubal jubbanti ak jubbanti. lépp loo xam ne dañ koo def te ñi caa foog ne ak njubal ak njubal yëng ca biir. assemblée nationale dafa am responsabilité leer na déjà am na journalistes yi am na ñu ci bind. ah ma jàpp ne assemblée nationale moo war a édifier le peuple sénégalais ci condition yooyu ñu defee eurobond bi. te hmm. FMI soxlaatu xaalis boobu soxla wuñ ko woon ñoom lu tax ñu lebi ko parce que nag le leb boo xam ne boo ko lebee dañ la daam lu ñu la cee mbakkar feggul. dëgg la ah boo ko xam ndax moo la gënoon nekk sa yitte ca la nga xam commission ba ah commission yi mooy mbakkar feggu. waaw mooy mbakkar feggu commission yi. xam nga ñaari les ministres de la bu ñuy lebi xaalis dañ ciy am lu ñu leen cay compal. compal waaw ah, am na loo xam ne sax day dem ci fonds yi Hmm. loolu je crois que assemblée nationale war naa leeral ni ma jàmbal bind na ci benn article waaye kenn ci ñoom tontuwu ko te nag loolu dafa jaaduwul cest à bu article de presse bu toll noonu am information yi ca ne su fekkente ne euh, même bu dul dëgg ñoom nañ ko weddi. dëgg la mais ki nga xam ne nag moom moom la constitution bi sas mu war nu koo leeralal. mooy la l' assemblée la commission économie générale waroon naa mën a leer waroon naa mën a ay contrôle budgétaire la xaw ma war naa mën a leeralal Sénégal mbirum 450 milliards yooyu ñu leb te FMI soxla wuñu ko lu tax ñu leb ko ak yan condition lañ ko lebee. macha allah c'est bien ba léegi it mu am benn mbir moo xam ne dañ ko fi xeexoon ay jamono. ba ne woon sax dafa araam wala dañ ne woon sax baaxul muy wàllu caisse noire. Mhm. noo gisee caisse noire. Euh, caisse noire démb ci système mu démb ba ak caisse noire système mu tey bi. bon dafa xam ne baaxul caisse noire man ñemewuma ko utiliser parce que man député laa woon. Mhm. Euh, rubrique yi nekk ci budget Sénégal amul fu tudd caisse noire. Mhm. Euh, mais sénégalais ñoo ko tuddee caisse noire xam naa li ñu ci jublu quoi mooy en fait fonds politique. ok ah Ousmane Sonko ba léegi moog Bassirou Diomaye Faye waa Pastef ñoo ne woon ñoom bu ñuy falu di ko dindi. dañoo defoon fatwa sax ne dafa araam. waaw ne dafa araam. Mhm. waratul dajale xaalis di ko jox nit ko xam ne lu ko neex mu def ci dañ ko war a dindi. Mhm. fëgg seen dënd. Mhm. ah waaw léegi ñoom faru nañ. même bu fekkee amul loi bu dindeegul bu dindeegul caisse noire gi waaye man mën nañ ca bañ a lekk nag c'est-à-dire bu fekkee loi dindeegu ko. xëy na loi des finances rectificative bi ñu ñëw dana ko dindi waaye bala koo dindi lañ fa fekk ñoom buñ ko laal parce que lu araam moom buñ même lu mu la jege jege bu ko laal. waaye nag bu ñu fàtte nag xam nga suñu borom nee na woon laa taqrabu zina jigéen bul jege. waaw teewul Ousmane Sonko bàyyi jabaram dem ci gone gu jigéen mu di ko bës. Ah, loolu loolu moom romb na te loolu it am na lu ci yoon wax. kër ah <laughs> déet déet déet. papa nag da ngay cokkaas. non cokkaasuma non non xam nga toujours damay nekk ci pédagogie. Hmm. parce que man xam man amuma lu may nattable ne ci Pastef ak Ousmane Sonko ay njublang lañ. loolu am naa ci lu ma wóor laa ci am maintenant nag jàpp naa ne sénégalais yi seen maanaam fëkk nañ seen xel bañ jàppee leen nit ñu baax. Mhm. waaye nag Ousmane Sonko dafa am lu mu fàtte. Mhm. ci ni muy doxalee te bu def ndax loolu moo mooy Macky Sall dafa nekkoon paratonnerre am. Mhm. cest nit ñi seenu noonu Macky Sall taxoon na ay bi ay boo ciy wax duñ la déglu. Ousmane Sonko daa war a xam ne nag Macky Sall dem na paratonnerre boobu nekkatu fi cest à bu nit ñi wax ci moom nit ñi daañu la déglu loolu moo tax keroog bi mu defee déclaration ca théâtre ba. réaction yi mu indi daana wax yu mel noonu te kenn daaw daaw réagiré noonu kon encore une fois na comprendre ne ki ku ki mu doon askan wi ba ñoo gis ay bi Ousmane kooku moom dem na muy Macky Sall léegi nag lu mu fi wax waxati ci Sénégal dañ ko segg xool ko moo tax mbir yi gën a yomb léegi booy wax da ngay gis ñoo xam ne da wax loo xam ne dañ naan man de wax dëgg xamewu ma ni nii la demee mais bien que ce man xamoon naa leeroon na ma nañ parce que man di teel la soskat la yakat dal la yakat fitna la lol nak defena tay tey ji Sénégal yëpp d'accord nañ ci parce que fitna ji mom rey na juróom-ñett fukki nit lu tut tut ak ñu ci blessé ala lu rew mi ci yakku ci lo xamne du xam nga man Ousmane état daf ko togn muy fayu su baba lu mu lu ko xex bi jaral dana jar nako ko waaye état da ko defut dara ndax goné gu jigen gum mu doon seeti ñoo moo dem ba nekkoo dag ma maa violé ko xamne daf ko fenal yakku dara muy ma mbay porte ko plainte mm. kon liko té candidat ci rawatina ci côté Mame Mbaye Niang mooy dafa duural nit. yàqub deram la la il la sooke coow lépp nag. mooy lam fi bàyyi jabaram dem ci gone gu jigéen naa ko naa ko damay bés lu pour faj tal ko Adji Sarr xamul dara mënut a faj kenn. Mm, dëgg a faj kenn donc encore une fois dem euh, li dal Sénégal nii damay bañ mu dalatinu parce que nag euh, nit ñoo xam ne ci yee fitna teg nañ la ay musiba ñu fen la ba ba ba ba yor réew mi bëgg laa yu continuer di la yor ci fen. loolu nag dafa laaj pédagogie man damay jàngale damay jàngal nit ñi nitu Pastef ni ñu doxalee ba actif bi pour que lu mel noonu non seulement ñoom ñu gaaw fee jóge waaye bu ñu fi jógee lu mel noonu dootul dal du ci àdduna parce que nag yoon gan ku ñu xam gan absolument kuy fëggati ñu xool foo jógee nag yow yaay kan mais nit ki ñëw rek ñu naan waaw waaj dafa yaru nekk na inspecteur des impôts pendant quinze ans musul détourné xaalis Oustaz Konté hmm. un inspecteur des impôts mënut a détourné xaalis xaalis kenn rek ko fa man muy le directeur général directeur de la DGID kooku mu mën a détourner xaalis parce que yor na fonds yu mu yor waaye un inspecteur des impôts du détourner xaalis. parce que yorut xaalis bi muy détourner xam nga la man. redressé la nga war a fay ay milliards mu wàññil la ko nga compal ko dara loolu yéen ñaare ko Cheikh kenn du ko xam kon encore une fois mais malheureusement ñëw médias yi journalistes yi ñu seen liggéey lu fen rëy rëy rëy bu ko Ousmane Sonko fenee journalistes yi fexe ba tasaare ko ñëpp di ko dégg chroniqueurs yi topp ci. Mm-hmm. te wolof Njaay dañuy wax ne Sénégal dañuy wax ne wolof yi ñooy wax loolu te ne lu ñëpp na maanaam lu ñëpp wax mooy dëgg. dañuy fexe ñoom seenu fen ñëpp di ko wax ba mujj ñu def ko dëgg. mais finalement boo xoolee dëggantaan wax dëgg yàlla diggante fukki at yi muy 2014 ak léegi. gone yi wàññi nañu loora lu mu tuuti tuuti mille six cent et quelques fen yoo xam ne Ousmane Sonko fen ko Sénégal. <laughs> loolu nag sëñ bi. doy naa trop c'est-à-dire que man dama dañ leen a nax ba bu ñu leen ku leen woote naxoo leen euh, dañ lay jéppi mu tekki ne aw askan wu jàngut boo koy xeexal di yow lay jëkk jéppi c'est pourquoi man personnellement bettuma jaaxaluma maanaam nga même ngay xeexal askan bi ba pare ñoom ñu jóg di dal sa kaw parce que euh, loolu dafa yàgg ci réew mi parce que nag nit bu xamut euh, wax ko wax ko dëgg day metti ci moom pour mu dégg ko par contre nit nit bu xamut aw fen day yomb dugal ci boppam xam nga jékki-jékki rek ne Alioune Sall jaay na pétrole bi 6000 milliards. temps yii sax gars yi ñu koy baalu ak nga ne waaw Macky Sall 2016 Ousmane Sonko benn journaliste Ndeye Fatou Ndiaye mu ne ko mu ne ci interview mu ne ko euh, gouvernement bu Sénégal mi ngi installé ay pipeline ci ci géej gi di ko jaay. 2016. gis nga bato bee bi bi bi Diomaye Faye dem fa ki dem. waaw bato boobu ñu génne ci télé bi Diomaye Faye dem fa moog ba moog kii euh, Birame Souleye. Birame Souleye oui. bato boobu 2016 ñu commencé ko defar. bi Ousmane Sonko ne mi ngi manque pétrole bi di ko jaay boobu 2016 fekku ñu commencé koo defar ñu jóge ci mu ne Mamour Diallo dafa détourné 94 xamna naa banque ba xam naa numéro banque ba dara du ci deug neuf yorna naa rapport IGE e bu takal ma mbay dara du ci deug xeyna c'est le moment mu dal di mën a rapport dara yoru ko ba ba ad ni kër ma nga dégg mu naan ci rapport banque sama taabal waxu deug ben rapport IGE bu takal ma mbay ci milliards amut bu mu diko di parce que mais nak euh, à toute chose malheur est bon je crois que bés bu Sénégalais yi demee ba xam nag ne. Ousmane sonk da leen doon fen non seulement dinañ gaaw bu jóge fi waaye dootuñu euh, lu mel noonu dootu leen dal am na sama benn xaritu commerçant bu ma doon waxtaan mu naan ma waaw yow moom di nga sonn parce que mënoo fexe ba Sénégalais yi gëm ne Ousmane Sonko fenkat la ma na ko man nit ñi gëm ko du sama yitte. wax nit ñi Sénégalais yi ab fenkat la mooy sama yitte te gis nga nag fen du bu jaaw. dëgg la Ousmane Sonko dana moom ci boppam bu toogee di xool boppam. dana xam ne un ci mbirum Adji Sarr fenn Sénégalais yi ci mbirum ma Mbaye fenn Sénégalais yi mbirum Adji bi nag fenn ya la mu jur moo bari. ay nit yu faatu ay gor yu kër yu tas. saaga sëriñ si. bu moom bu toogee xool boppam dana xam ne li doon wut. jërut li eh, lim lim ko mu ko jëndee. li sëñ Mountakha waxoon wutin wi. wutin wi dafa am solo. loolu nag wutin wi sëñ sëñ sëñ Mountakha bu dew man bu ko neexoon mu gën a développé c'est que nit wut lu ko jomb wutin wa day ñaaw. waaw sëñ Mountakha bu ko neexoon mu gën a développé parce que xam na li mu doon wax moom. cest à nit buy wut lu ko jomb wutin wa day ñaaw. sëñ Abdoulaye Mbacke dafa daan wax ne. booy wër nit koo xam boo gisee nit koo xam ne waxi daawam ak waxi renam day safaanoo mhm. nee na booy wut nit ba ko fa dëgg ma jàpp ne nag en tout cas murid baax yi moom sëñ Ibrahima nee na leen ngeen ba Ousmane Sonko parce que nag nee na nit ku baax du mel ne moom maanaam nit koo xam ne sa waxi daaw day day safaanoo sa waxi ren du nee na booy wut nit ba ko fa te Ousmane Sonko lu mu wax daaw boo ko méngalee waxi renam jéppi ko

waaye baar baar dafa mel déedéet déedéet ñun ñëpp ko ci dégg na yàlla Abdou Jàmbaar ñaari malaaka bii <laughs> bii di fi <laughs> yàlla yooyu. dëgg la <laughs> kii di bind lu bon li kii di bind lu baax li. xam nga yemal xiyaam yàlla buy ubbi dossier yi du fa nekk di la laaj yaa def li déedéet moom xam na lépp ba pare parce que il a été informé. dëgg la waar moomee doon nga xam dañ ko doon xaar bés penc. léegi moo nekk ci àdduna bii. moo wàcc ñëw. loolu nag xam naa ki mu gën a dara ci kawam nag mooy Ousmane Sonko maanaam fi mu boo koy xool buy wax sax da ngay xam ne kii dafa tëlbati parce que nak nit la xam nga bu démé dem banan naan man mënul sama war moy fekk war xawna ko reuy deug la <laughs> xam nga nit mom ñaaral day wax lo xam bu day nax bopam wala lu fi indi bat bi. waye lu ko fi indi lan mo fi indi waar mënul war kon war ak yooyu bëgg reuy té nak dess des na parce que bis bu yalla sax xali yi war yu am ko li am solo rek moy gis nga euh, nit ki mëna wax lu mu dul def. Mm-hmm. nit ki mëna naa askan lo dul def. deug la li nit wara moyu moy di lo narutu loo narul parce que na ak man du benn. bokkul dëgg la. diggee loo narut wax nit dara ngir yàqub daram. Mhm. loolu dañ ko war a génn ci politique parce que en réalité lan la oustaz lii mooy jàngoro ji ma gis ne mi ngi ci dal na ci réew mi. Mhm. saafara sii laa ciy diggee. xam nga politique mooy wujjew wujjew saafaray askan soxla sa askan wi. dëgg la gis nga ni soxna yi di wujjee. pour mm-hmm. seen ba bànneexu jëkkër. dëgg yi dañuy wujje ngir njariñu askan wi waaye wujjee ngir njariñu askan wi sëñ bi nag bu askan wi rek a di ko def. dëgg la wax yàlla jërul na nga di ci fenn. dëgg la jëru nga di ci fenal kenn jëru nga di ci woote fitna. non te en gros personnellement xëy na li dal réew mi metti na waaye man jàpp naa ne bu nu génnee ci séquence Ousmane Sonko ak waa Pastef ak Bassirou ëllëg ku jógati laaj réew mi Sénégal war nañ ko segg bu baax parce que arrêté dama ko ma di wax nag jekk gis nga fal président de la République mm-hmm. dafa am lu ñu ci war a seetlu lañ cee seetlu mooy personnalité am mm-hmm. ndax mat na kilifa wala matul kilifa. dëgg la ndax am na programme bu mën a saafara soxlay askan wi. Mm-hmm. ñaar yi lañ ci war a xool. et malheureusement Sénégal boo xoolee bi ñuy fal Diomaye Faye faluñu ko ci personnalité parce que ne Diomaye mooy Sonko. dëgg la loolu lañ ko fal <laughs> mooy takk ndeeru Sonko takk ndeer ah tak ndeer bi lañ fal programme indi parce que bi ñu seen programme bi ñu def Ousmane Sonko moom moom ñoo toog def point de ne programme bi ñu bind baaxul dëgg la benn ñun toog ñu falu ba noppi daan ne procès bi ñu leen doon kon sénégalais yi bu fekkonte ne nag loolu nag gis nga oustaz du sénégalais ñoo bëgg bon du sénégalais ñoo bëgg ku leen ndax c'est que ah, état bu Sénégal la république Sénégal moo moo waajalut sénégalais yi ba ñu ba ñu mën a jëfandikoo démocratie. dëgg la ñoo waajalu sénégalais yi ba ñu mën a jëfandikoo république ñoo waajalu sénégalais yi ba ñu mën a jëfandikoo état droit ñoo waajalut sénégalais ba ñu mucc ci loru politicien. loolu c'est la faute de l'état sénégalais parce que faute république bi euh, république li ko jëkk war ci askan mooy xamal ko ba mu xam lan mooy citoyenneté. lan mooy république lan mooy démocratie extra lan mooy ay sañ-sañam fan la tàmbalee fan la yem lan mooy ay droit am lan mooy liberté loolu lañ jàngalut Sénégalais yi loolu nag jàpp naa ne footu république bi la parce que damay wax toujours ne côté diine bi nit ñi fexe nañu ba alxuraan arab lañ ko bind muy arab bu compliqué yeneen téere des mooy risaala yeeg laxdar yu arab lañ ko bind mais pourtant fexe nañ ba sénégalais yi xam nu ñuy jàppe nu ñuy tiime nu ñuy sangoo farata nu ñuy nu ñuy naafila yooyu yëpp fexe nañ xam ne nu ñuy wooree nu ñuy tabaskee kon ñi nga xam ne waa diine ñoom góorgóorlu nañ ba nit ba ba jullit yi xam naka la ñuy jox dundee seen diine soo demee église aussi fexe nañ ba catholique yi xam nañu dundee seen diine politiciens yu Sénégal nag ñoo fexewul ba nit ñi xam naka la ñuy dundee seen état naka la ñuy dundee seen république loolu jàpp naa parce que loolu moo tax Séné li ne Sénégal yi seen xel ràgg ba ku leen naxul ñu defee dëgg leen mooy tax liggéey nga xam ne jàpp naa ne ne këtt ne jonn fi nii du affaire u PIB du wàññi njëg yi mooy tabaxaat sénégalais yi. préparer ci situation tabaxaat sénégalais yi tàggat leen bañ feri nax parce que ku mënut a fexe ba sénégalais yi feri nax mënoo leen a musal ci ku mel ne Ousmane Sonko ëllëg parce que nag day ay même avant Ousmane Sonko lan nga daan gis fii am na benn woykat bu dëkk Inde nga xam ne boo demee Inde kenn xamu ko. dëgg la tudd way di keroog bi mu ñëwee Ndakaaru aéroport lay Blaise Diagne gii lañ kii. waa Léopold Sédar Senghor lañ ko gàttandoo lu ëpp un million de personnes ànd ak moom di dox bay hôtel ba mu fanaan. muy Vaidé. waaw indi fi benn xale boo xam ne nee daa mokkal alxuraan te jàng ko. Cheikh Chérif. yóbbu ko grande mosquée bu Dakar foofu fees del ni ñu mel ne ñu kiimaanoo. te loolu ñi ko xam ñu xam li ñu doon def xam lan moo garaaw. parce que jàng al mokkal alxuraan te parce que. loolu bu amee yàlla day defal Cheikh Chérif lu mu defalul yonent bi. est sallallahu alayhi wa sallam Mohamed parce que Mohamed dañ ko jàngal alxuraan mu doon ko xam. dëgg la dëgg loolu dëgg. iqra iqra bi ñu des su boobaa yàlla day daal nekk maandoo di. parce que yàlla bu tànnee ci jullit yëpp benn nit mu jékki-jékki sol ko alxuraan te alxuraan nag xam ko jurul yàlla di la ko sol. dëgg la dañ koy jàng iqra la wax yàlla daf ni jàng leen ko. yàlla waaye néew dama koy sole. yàlla sax dana ko wax ju diis innaa sanulqii alayka qawlan saqiila mu jeex et pourtant réew mii. sëñ Tuubaa nekk ma Ablaye Malick nekk fii ma Ablaye Niass bu Kunta Cheikh Omar Fouti yu taal ko njabootam ak ni fi alxuraan yi ak diine yàgg xam am na ba nu mille ñu toog ba bu yàggut ñu indi na xale bu ndaw dina ko naxe ñoo dañ koo sol ñoo dañ koo sol ay nitu diine di ci yëngu oustaz yu fi nekk jamono bii mooy naafeq yi mooy xam nga dafa am oustaz show dafa am oustaz show ak oustaz oustaz jàngale ay oustaz show lañ léegi nag gën nañoo bari léegi. ñu def ay tafsir de moom mooy mooy mooy taf tafsir spectacle. spectacle <laughs> waaw mooy ñiy dundee diine. te ñooñu dañuy def mbappat mbappat l'islam dañuy def dañuy mbappatoo l'islam voilà donc mais kon réew mu mel noonu ak li fi jaar ci borom xam-xamu diine ñu dem dem ba mën noonu nax ci Cheikhou Chérif. réew mi ma mënta mucc ci nax yi ku mel ne Ousmane Sonko. or li may gëm mooy suñu bëggee defar réew mi ba réew mi baax mm-hmm. la ca jiitu mooy ñu defar nit ñi parce que nag gis nga. Sénégal gu baax. Sénégalais yu baax rek ñoo ko mën defar. dëgg la et malheureusement état Sénégal ci wàllu école bi. tama du tabaxul nit. dëgg la souvent boo gis may wax ne dañoo waroon a fexe ba njàngum alxuraan ñu dugal ko ci école bi. dëgg la pour que parce que nit ki buy juddoo yaari yëf daf ko war a am. maanaam eh, dañ ko ko war a defal benn bi un. war nañ ko xamal nu muy xàmmee ndigalu yàlla yi. Mhm. tere yàlla yi nu muy defee ndigal yi nu muy bàyyee tere yi ba mën a mucc ci mbirum yàlla. muy diinam. Mhm. kooku war na ko xam mais aussi war nañ ko tàggat ci àdduna ba mën a jànkoonteeg jafe-jafe àdduna yi. dëgg la léeg-léeg mbokk sama bokk yi nga xam ne dañuy jàng bitim réew ci réewu naar yi bu ñu demee di leen jàngal bu ñëwee fi ñu naan dem leen jàngal da nga ci koo xam ne mathématique la jàng. ñoo la jàng ñoo xam ne ay médecine lañ jàng bu ñëwee rek ñu leen dem leen jàngale ji. man mi loolu moom dal. oui c'est loolu mooy surtout c'est que am nit euh, am maanaam nit ki mën naa jàng arabe mën naa jàng chinois njàng boo xam ne xëy na njàngum diine mën na caa mën naa am diine la jàng mais njàngal ko leneen aussi. dëgg bi des na mooy jàpp naa ne Sénégal ci boppam soxla na diine xam nga daa mel ni étude bu ma mës a def. ci fii ci Colobane marché Colobane boobu yàgg na ñi ci ñiy jaay fëgg jaay am ay question yu ñu doon posé man ba ma fa jógee keroog sama yaram dafa daw maanaam ña fa nekk ci mokkal alxuraan kenn xamul nu toll ñuy jaay fëgg jaay néew mu méttee dëgg la ku ko jàng ba mokkal ko Sénégal yi ni ñu soxlaa ku ku mokkal ku jàng alxuraan ba mu jàngal seen i doom jàpp naa ne état bu Sénégal école bi ñëpp bokk waroon na ci recruter de milliers d'enseignants alxuraan ñu jàng nit ñi si jàngal nit ñi alxuraan di leen jàngal tiim di leen jàngal jàpp di leen jàngal sangu farata di leen jàngal nu ñuy jaamoo yàlla maanaam nu ñuy defee ndigal yi ak nu ñuy bàyyee tere donc Sénégal boobu nag bu ñu ko tëggee muy Sénégal boo xam ne xam na lan la war a def ba mucc ci merum yàlla. sénégalais boo xam ne xam na lu mu war a def ba mucc ci jafe-jafe àdduna boobu sénégalais mooy sénégalais bu fari nax loolu nag la réplique bu sénégal di parce que Senghor bi mu fi toogee daa toog rek ami jafe-jafe dëgg la muy d'abord affaire pia yi ba affaire Mamadou Dia mu daal di waaw mm-hmm. di jéem a neexal nit ñi au lieu mu defar leen mm-hmm. nekk ci ba jóge fi président Abdou Diouf continuer ko ba ci Macky Sall c'est-à-dire que politiciens ñoo ittee woowul defar nit ñi bañ feri nax parce que boo fondamentalement politicien sénégalais day jariñoo nit te gis nga nit ñi boo leen bëggee jariñoo da fexe ba ba duñu fer ay nax da ngay fexe ba mën leen nax parce que nit ku ñu mën a nax rek moom moom la ñuy moom moom nit ku mën a nax moom la ñu mën a jariñoo parce que boo xoolee même gone yi di ànd ak Ousmane Sonko da nga ci suñu yaakaar dama nag damaa jaaxle ne yàlla dong lañ ci war a nit ki boppam la a loolu laa gëm. dëgg loolu dëgg. politique politique itam xëy wate gi loolu affaire nit la. dëgg moo tax toujours dama nañ bàyyi yàlla yëfi yàlla tamit noonu ñuy def yëfi nit. yëfi nit looloo dëgg. et eh, maintenant pour nga mën a bàyyi yàlla yëfi yàlla da ngay dañ ko war a jàngal nit ñi mais pour nga mën a xam mhm. a jàngal. donc encore tàggat gi ñu waroon tàggat askan wi ba tàggat ga des moo nu indi lii ci fukki at ay nit ci fen sos yee fitna indi fi soo ko fi ay faatu yàq fi alalu réew mi ñu xëy xëy ne leen jël jiite leen ñu. maanaam population bi dañuy kaf. dañuy do dañoo xamut. xamul sax xamuñu li sari ñu lan mooy wote xamuñu responsabilité bi nekk jël ab bulletin di ci wote def ci turu nit. parce que xamuñu lan mooy démocratie xamuñu lan mooy état droit xamuñu lan mooy politicien parce que nit ku xam politique doone ab leader mooy sama yaakaar. dëgg la. même boo xoolee sax ñi ànd ak waa Pastef boo déggee ñuy wax sa yaram day daw parce que yow koo xam ne yow yaa ko fal di ko fay weer di ko jox sa alal naa ko liggéeyal ma ci. ba noppi bëgg koo doon si ko si boru. sëñ loolu du nit. c'est que maanaam bu ñu bëggee defar réew mi nañ fexe ba Sénégalais yi fer ay nax maintenant nag politiciens yi nga xam ne defaroo nit ñi moo leen intéressé waaye defaral defar defar nit ñi yëkkatiwu leen. ah ñooñu situation bi day baax ci ñoom. dëgg d'ailleurs booy xool sax fondamentalement ñëpp daanaka ci wàllu wet googu ñoo yem les mêmes comportements quoi en daal je crois que bay wi ñu sas wi ñu mat a gën a mat ubbi. Mm-hmm. mooy sasu gën a tàggat xelum nit ñi. Mm-hmm. bañ fer ay nax. gën a tàggat xelum nit ñi bañ bañ fer am tiit. Mm-hmm. parce que aw askan bu feree nax ak ferum tiit. waaw askan askan wu neex a defar lay doon. parce que dina boo ko jaar bu muy jaar dina ko xam te bu fa jaaree du ko ragal. macha allah. weer eh, émission bi presque mi ngi ci fin am presque ñaari question rek laa bëggoon a dugalaat. bisimilah ñu gàttal. sorti yu mujj yi nga xam ne Bougane Gueye Dany def na ko <laughs> surtout ci li nga xam ne mooy tabaski bi Bougane nag nee na doon fenkat xoola doon ab sàcc moo ko gënal doon fenkat Bougane kan lay waxal ak alal lu ko yëngal. Ah, parce que Bougane temps yi moom yëngu na bi ma déggee wax ji dama dama damaa gis ne daa mel ne waa Pastef dañoo moomale seen bopp wax ci. waaw ñoom laa gis ñuy tontu. parce dëgg la suñu vérité absolue yonent bi sallallahu alayhi bi nu yaakaar. dëgg la as maanaam moom mi nga xam ne moo nu indil téere bi yàlla bi. Mm-hmm. yàlla dina ko royloo. Mm-hmm. yonent boobu moo ne. Mm-hmm. ab jullit mën naa mën naa mooy yàlla. dëgg la bu sàgganee. dëgg la naa sàcc bu sàgganee. waaye yonent bi daa catégorie dañu jullit du fen. jullit du fen kon bugaan bu nee sàcc gën fen ah, daa waxaat daa waxaat li wax li yonent bi wax rek wax na dëgg. loolu waxi yonent daal la étalé ah wax dëgg maintenant euh, Diomaye nag da kii euh, euh, Bougane daaw aller plus loin. Hmm. xam nga ñoom dañ leen a jiiñ ñoom patron de presse ne dañoo sàcc. ay délinquant fiscal lañu. Hmm. seen délinquant googu de réyut juróom-ñett fukki nit. réyut juróom. réyut juróom fukki nit. est que. seen délinquant googu leen Ousmane Sonko jiiñ. Hmm. taalut Auchan taalut Total taalut sunu champ taalut banque taalut BRT taalut TER taalut université. Mm-hmm. te nag fenn Ousmane Sonko lii lépp def na ko ci réew mi. que moom Bougane daa waroon a gën a gën a leer ne sàcc sàcc sàcc sàcc impôt yi moo gën fenn Ousmane Sonko bi ndax fenn Ousmane Sonko bi moom musiba naaru laay la fi indi mais bon fenn du ba jaww. dëgg la fenn du ba jaww. fenn du ba jaww maintenant nag euh, ñi war a fay impôt yi dinañ ko fay. voilà euh, parce dafa mooy alalu alalu réew. réew mi dëgg mais jàpp naa ne lii tax nit ñi gën a sawar ci payum impôt moom mooy un ba bañ a di ci seenu ndodd. dëgg ñaar buñ ko fayee mu gis fa muy dugg. dëgg la. buñ ko fayee gis fa muy dugg boo xoolee ci mbirum diine fi Sénégal génne seen alal jox ko ci lu ñu gëm jëfewu fi. la. yaa ngi gis ñuy joxe ay daayira di teg di cotiser ñi di joxe ay addiya ju bari parce que rafet nañ jot ci ne lii ñuy joxe dañ ci jot ëllëg waaye ginnaaw nag euh, mbirum impôt état fii ci àdduna la yem mhm. dañoo war a fexe ba nit ñi di gis sa muy dugg fa muy dugg di càq di ko xam am te kon sax léeg-léeg man may dégg ñaan waa Macky Sall dafay bàyyi bor yu bari quinze mille milliards mu ne ngeen dëgg de waaye Macky Sall fi bàyyi du quinze parce que bu doon loolu day xaalis boo ko def ci dañ nan bàyyi na fi boru 15 milliards dedet lim fi bay mo Ila Touba. Hmm. ay bor la. aéroport Blaise Diagne ay bor la. autoroute Ila Ila Ila Ila Ila Kola ay bor la. hôpitaux yi nek Touba ay bor la. kafrine ki ak ak ak ak ak ak Kédougou euh, université Amadou matar mbaw ak yene yi dess hmm. ay bor la xam nga lan mo bon hmm. bor bo xamne dang ko jël diko fayé bor. wala wala nga diko fayé fayee fonctionnaire waaye bor bo xamne dang ko investir. loolu bor bu baax la parce que bu fekkee état bi daa jàpp ne da ba nga yow da ngaa jàpp ne état daa war a toog di dajale di dajale di dajale ba am lu ne gàññi door a liggéey. Mhm. état boobu du liggéey. parce que état fi muy jëlee alal moo bëriwut ñaari bunt la muy taxe yi impôt yi ñu jëlee ci nit ñi ak tax yi ñuy teg ci njaay mi wala. Mhm. luñ ko lebal. lañ ko lebal nag. Mhm. mën na cee liggéey. l'essentiel bu ci liggéey loo xam ne mën naa juru njariñ ci réew mi ba loolu du loolu loolu yàqu te nag ñi nga xam ne bor boobu. ñuy ñu ñu ñu leb ay impôts ëllëg la. c' est a su léeg-léeg ma dig sama gars yi sax bu ñu xam ne waaw président Macky Sall bàyyi na fi nangam bàyyi na fi nangam bàyyi na fi nangam waaye li président Macky Sall na ñun suñu xaalis la. dëgg noo ko faloon di ko fay. dëgg la jox ko suñu alal ni ko liggéey ci. li ko war la la ko war la. Hmm. c'est-à-dire parce que loolu boo gisee ma di ko insisté dama bëgg nit ñi xam lan lañ doon ci réew mi. dëgg la Sénégal nit ñee ko moom. dëgg la. Sénégal ñëpp ko am carte d'identité ci actionnaire yi nga bokk. dëgg la waaye mbir nag munoo koo moom nit defal la ca dara ba noppi nga di ko sibooru. c'est-à-dire dama bëgg ma nit ñi xam lan lan la maanaam ay affaire jébbalu yu ñu yemale ko ci kër sëriñ si. Hmm. ak jëli <laughs> wér bi politique bi nag ñu def ko yëfi nawle yu ànd. <laughs> loolu damay dëgg. waaw parce que dañu sax xam nga Sénégal dañuy boole yu bokk da ngay ñaar waaw am kii rakk topp mag doom topp bàyyi. d' accord loolu walaabal bal ci kër gi. ci kër gi. <laughs> sëriñ bi dégg nga doon taalibe mel ne mel ne néew loolu walaabal ni ci diine. ci diine ci wàllu politique loolu amu ci. amu ci toppaate amu ci. dëgg fa te mel ne néew amu ci. xam ne kii yor ki nga àndal li mu yor yàqu moom jox ko. dëgg la dënk ko dénk. diko fay lu mu yoré souffrance universelle universel nga fa way sëñ bi nit ki nga xëy fajar yewu dem fal ko buñ ne ko buñ ne ko ya wiw nga diko fay wer diko jox sa alal naa ko liggéeyal ma ci ba nopi nak bëgg a ci si borom may sakku ci gone yi passé bi nañu genné doonu ci doonu ci sibooru katub Ousmane Sonko te ñi def politique yépp nak wa APR ak benn parti militant yi nañu xamni ñi ñu jiite waruñu leena ci sibooru au contraire ni jiite ñoo wara ci si parce que nag ñu jiite absolument macha allah doyen émission bi rafet na kàddu yi rafet na xam naa question bu mujj rek ñu tëjee ko moy mhm. taxawaayu activiste républicain yi ak aussi taxawaayu ki nga xam moy sen djit di sen mentor di ba jaxate nga xam ne arrêté nañ ko oui luy sa gis-gis ci waaw xam nga dama len di parler rek luy ëllëgu activiste républicain non non mais euh, euh, pour man ça en fait moi ci vois c'est des militants républicains mhm. euh mais vraiment euh ay jambar lañ da di man man naw naa leen trop ci bi ba amé jafé jafé parce que nak activité réplique yi ma dégg ñuy daj mhm. li ma gis ñu diko daj mhm. ci mbirum Macky Sall ñako waron daj du ñom mhm. ñe Macky Sall no woon ay ndombo tank am ci alal ju bari ñoña tay bu ñuy dalé ci ko Macky Sall ñoo waron tontu deug la way do len gis ñan nga gis ci réseaux sociaux yi ba yi yeen ñi ak ñeneen ak ñeneen waaye ña nga xam ne moom bi Macky Sall yore yëpp yi jariñu nañ ci baax kenn déggu la ñu wax. loolu nag li muy tekki mooy yéen gëm ngeen ko gëm ngeen combat bi loolu leçon bi ci mat a génnee bi ci mat a jàngate mooy ku ci yorati mbooloo ña nga cay joxu ca da war a seet ñoo xam ne boo demee ba nekk jafe-jafe ñu ànd ak yow parce que nag bi Ousmane ko bëggee taal réew mi néewaa na ministère yoo xam ne boo leen woo ci média média ñu nangu. ci jamono jooju li ñëpp gis baa mu yor page Facebook am. Sénégal di ko suivre muy leeral. am na ñu ko am na ñu am information yi mu yor wala ñu yor yu ko ëpp nekk ci position yu mag te ñeme wuñ ko woon. kon encore une fois seen combat boobu pour man du combat bu ne bu ne bu combattre pas pour Macky Sall bu combattre pour le Sénégal. encore une fois vraiment maa ngi leen di féliciter dina ko li ma leen ñun nag bi ñu nekkee université dañoo amoon benn règle. Mhm. mooy bu nuy xeex ñi jàpp. ñun dañ day yokk suñu xeex waaye duñ duñ duñ xeex ñu génn. Mm-hmm. parce que il faut pas xam nga ngu politicien dafa saay-saay. Mm-hmm. état mën na laa jàppal sa njiit nga nga nga jóg nag di lijjanti ñu bàyyi ko ba fàtte xeex ba nga doon xeex. dëgg la mais xeex bi compliqué wut parce que opposition bi opposition Ousmane Sonko mooy Ousmane Sonko waxi démb ma koy rey tey bi des mooy. liggéey bi fi mu gën a jub war a gën a jubal mooy def pédagogie te xale yaa ngi ci pédagogie bi mooy lan di jël waxi démbam di ko mëngi lay waxi teyam gis nga loolu ko tàggaleeg sagom ba muy wax waxi dof buñ ko bàyyiwut jàpp naa ne dana xëy xëy ne Bassirou Diomaye Faye te ma bàyyi ma dem uti leneen lu ma def <laughs> bu dee nita parce que nag bu dee nita dina xam ne il était très trop loin bi ci mooy le fait que ñuy génne wax yooyu mm-hmm. di ko li mm-hmm. dana tax ëllëg benn politicien buy waxati dana ci sa dana ci sóoraale loolu. parce que nag wolof Njaay def ne ëllëg du añ du reer waaye mat naa bàyyi. Euh, xel Ousmane Sonko nag daa yorut xelum bàyyi ne ëllëg du añ du reer waaye mat naa bàyyi xel moo ko moo ko teg lii ko dal lu ñëw ci. lu ñëw ci bopp rek mbokk parce que damay waxtu fii ne Ousmane Sonko li ko dal dafa métti mooy day bopp tut te gimiñ gi yaatu. que. bopp tut te gimiñ gi yaatu maanaam la xaj ci gimiñ gi bopp bi mun koo togg. bopp bi attanu <laughs> ko waaw koo togg. lu ko neex wax. est-ce que lu ko neex wax de quatorze ans. baat bu ñaaw bu ne teg na ko ci kaw nit li ma li ñu jàppee ñoom baa ci problème mu affaire homosexualité mais kenn ku ne dégg na Ousmane Sonko mu ne Macky Sall dafa am agenda homosexualité. dëgg la. loolu nag ma ciy jàngal mooy xëy na Macky Sall la mu waroon def ci Ousmane Sonko da ko da ko da koo defut te da koy def te na mu ko waroon defee defewu ko ni dëgg la dama fi naan toog na Ousmane Sonko daa mel ne Sénégal daa am ñaari code pénal bu Sonko ak bu Sénégal. dëgg muy wax lu ko neex bu ñu waxee mu naan way Macky Sall ñi mu maa jàpp. te nag lam doon wax mu ñi mu maa jàpp mooy doomi jàmbur yi la la defoon ab xeexukaayam. dëgg may wax nag juru gone yooyu yu soo Sonko fëkk seenum xel. yéen dafa mel da ngeen a yaradal parce que yaradal mooy jur sa doom ba noppi ñàkk ko ci caaxaan. yow munoo jur sa doom jàngal ko bàyyi nit jël ko sa maanaam tàggale ko sagoom ba at ba kanam di ca rot te pendant ce temps moom mi ngi toppatoo doomam parce que am image bu génn télé ci jamono bi ñu ko tëjee këram. loola jàpp naa ne Sénégal yëpp waroon nañ ci bàyyi boo sax te yëguñ ko waa bi dañ taxawoon ci bundu kër bi rek pour kenn du fa dem mooy bi muy ñaan gendarmerie xawma police ñu bàyyi doomam mu jàng ci bis booba mi ngi doon woo doomu jàmbur pour ñu xeexal ko kon li muy tekki mooy Ousmane Sonko du patriote du nit ku jub du nit ku kuy jubal du nit ku baax parce que nit ku baax du sacrifier doomi jàmbur ngir sa njariñu bopp loolu nag jàngat bi ñu ci war a jàng mooy nun ñuy def politique nañu teg fi suuf di sacrifier doomu jàmbur ngir suñu njëriñ c'est-à-dire li des ci àdduna Sénégal ab politicien waratu fee de nit waratu fee de ci wàllu politique parce que réew moo xam ne ci lu matul fanweeri at def nga ñetti alternance daana nga ñaari ñetti président de la république wala ba ñetti président de remplacé nañ leen mooma réew waratuñoo xuloo ci politique rawatina ci élection ba nit di ci faatu parce que nag jéego yi ñu waroon dox dox nañ ko tey ji benn réew gën noo jekk ci am démocratie bu dal su ko defee nit ñu delloo politique ca la mu doon mooy di gëstu jafe-jafe askan wi ak di indi saafara. ñi nga xam ne ñooy laaj réew mi nag ñuy xool ci ñoom yaar yëf benn seen personnalité ndax ñii ay fenkat lañ wala du ñu fenkat ay warkat lañ wala du ñu warkat ba xam seen personnalité ndax ñii mat nañu réew wala matuñu réew. parce que man jàpp naa nit ñi nag exigence bi ñu war a am ci ki war a nekk jàkk ki nekk iliman ci jàkk mhm. noonu boobu exigence la war a am ci ki war a nekk président la république parce que président de la mooy yilif mooy yilif président alal mu yor suñu lépp kon kooku dañoo war a seet ba xam ban personnalité la yor bi te mooy programme bi muy dikk askan wi nit ñi di teg seen bët. lii du dal ci Pastef bi parce que man jàpp naa bu ñu ko laajoon ne ko indil projet bi mu di leen wax waaye ooy waaye waaye su boobaa ñu ne Sénégalais yi li muy wax du dëgg amul projet. mais malheureusement nit ñi doxuñu ne comme aussi même affaire Adji Sarr question yi ñu ci waroon def bu fekkoon ne question yi journaliste yi nañ ko affaire bi du àgg fii du àgg fii bi mu naan yor naa ma mbay rapport bu ko taxal buñ ko bu nit imposé woon ne ko indi rapport bi mais sëñ bi yëfe du àgg fii en gros kellu nit ñu baax ñi dafa tax Ousmane Sonko teg Sénégal lu bon loolu nag jàpp naa lu mat a la. macha allah jërëjëf émission bi mu ngi ci njeexitalam doyen luy sa kàddu gu mujj. déet kàddu mujj ci émission bi waaye. ci mujj ci émission bi kon <laughs> ci émission bi. ci émission bi xanaa encore une fois sant leen euh, gërëm leen. Mhm. Euh, di leen féliciter parce que. li ma jàpp ne xeex bi ñu toll man sama classe gi ñun wax dëgg di dañu leen di gunge nag rek mhm. waaye nag wax dëgg fi ne retraite sax jot na ci noonu nag waaye nag euh, damay wax ne lu baax moom amul retraite mhm. kon encore une fois maa ngi rafetlu seen liggéey di len encourager bu baakha baakha ba ah ñi nga xamne nak ñoo andon ak Macky Sall yoru ci mburam ga te don ci terlu nañu len jappalé nañu jappalé ba ci njabotam yeen ñi andon ak mom ci liggéey muy les activités républicains nañu len dimbali waye na xam ba politiciens mom dañoo dañoo bon bon ko tolne manam fi ne loy wax lu mu baax baax tuddo len duñ dañ seen yoon du ne ci la ngay wax waye fi ne bu ngeen doon waxal ay nit lu ñu am jox leen ko waaye nag bu ngeen di waxal askan moom dañ naan dañuy waaf encore une fois je crois que vraiment je lance un appel à tous les responsables de l'APR ay ministres yi yi fi nekkoon ministre ay nekk député ñi ko nekkoon kenn ku ne na na ñëw taxaw ci seen wet ba du ngeen wéet ci xeex bi keroog bi ñuy def procès bi ma j'étais là-bas j'ai passé la journée ñaari journée yëpp jàpp naa ne bis bu njëkk ba Maître Sidiki Kaba bi nekk mujjoon nekk premier ministre Macky Sall dafa waroon taxaw sol robb avocat la avocat a yëpp dañu war nañoo sol sen robe tous les ministres yi bokk jàpp dañ fa war nañu bu fa kon japp na ne xëy na sax mbir mi mëna ba bañ a ni loolu dëkk waye nak euh, kërëm la fa sellu moy xamna ne ñi dëkk pigine mom mobiliser wu nañ mobilisation bu rafet rawatina li ñu ñu les les activistes républicains ni ngeen def su be ne les responsables de Benno Bokk Yaakaar moom la ñu defoon keroog gëw ma ne procès bi dina mujj ni mujjé loolu nag ñi ko def seen bopp lañ koy def. parce que bu ñu bëggee xale yi gën a sawar ci xeex bi il faut que ñu yëg ne maanaam mag ñaa ci seen wet. parce que ñaan peccum gone bu neexee mag. nday jaay jàpp ci waggam dañoo war a jàpp seen wagg jàpp seen wagg nag mooy di ñëw fii. Mm-hmm. ministre yeeg ñi nekkoon député ñëpp dañoo war di ñëw fii di yëkkati kàddu. loolu di animé chaîne bi. di di jaxasoo ak yéen seen ba xam ci ban wet lañ leen war a jàppale ci xel ci xalaat. ak nu meuna dem ñu japp leen pour xex bi ngeen gën ko meuna def parce que xex bi mom day door tambali waxu waxuma la nag ag encore une fois vraiment je vous félicite je vous encourage. euh dara yombul nak dara yombul nit mom bu bëggé lu yomb. leen dong la war na ñaan yalla muy bañu judd. ñun wolof nak dañuy wax bu ñu diw noppalu na mooy faat na kon aduna mu nopp amul nopp noppal kon encore fois vraiment je vous félicite et je vous encourage. di sakku nak ci ñëpp nag ñi nga xamne ño ñoo nak nag Macky Sall 2012 wala lu ko jitu ba mu dem nag ñu xool les activités républicaines ñun nu ñu leen war a mën a gën a jàppale ci wàllu xalaat ci wàllu lu mën a doon pour que combat yi ngeen di mëne ngeen mën ko ginnaaw ñoon rawatina ci nag yéen fasu leen yéenee def ko combat mortel ko euh, maanaam xeexu mortel combat. Mm-hmm. xaw fasu leen yéenee def xeexu gàtt sa gàtt. Mm-hmm. fasu leen yéene def xeexub cooki fee cooki leen yéene rey juróom-ñett fukki nit dëgg leen yéene laagaloo kenn fasu leen yéene laal taal alalu réew mi alalu doomu réew mi alalu doxande mi duñ tas sëy du ngeen tasub sëy du ngeen saagalub sëriñ mhm. seen xeex wax dëgg yàlla neex yomb na yomb na jàpp encore une fois tout tous mes encouragements jërëjëf doyen kaddu yi rafet na kaddu yi jaar na yoon macha allah ñu kontaan bu baax sa teewaay ci euh, émission bi franchement parlant teew nga fi waaye am na it ay yeneen nit ak yeneen ay leader yoo xam ne gënoon nañoo jekk ak gënoon nañoo jaadu ci seen ay teewaay ci barab bi nga xamante ni seen barab la. ñu gisit sa taxawaay bu baax ci euh, Bah Diakhaté depuis arrestation arbitraire bi ak sa taxawaay ci activiste républicain ci xalaat sottante xalaat ak nekk yi nga xam ne yaa ngi koy nekk seen ak sa présence. ci aussi procès yi macha allah ñu jaajëfal la bu baax suñ benn kilifa doon wax rek ne ànd ànd rek lay firi te loolu nag moom mooy moom mooy àdduna. Mm. kon ñu lay jaajëfal bu baax. waaye di nuyu di ziarewaat képp koo xam ne mu ngi doon suivre ci seen xam ne mooy Baatu Dëgg TV nuyu auditeurs yi auditrices yi ci àdduna na di jaajëfal activiste républicain yi di leen ziyaara di nuyu ñëpp ziyaarawaat leen di wax ne émission bi mu ngi ci njeexitalam ñu ngi nuyuwaat ñëpp di wax ne ba beneen yoon salaamaaleykum